sur King FM. Avec à la présentation Penda Badji, bonjour. Euh, bonjour euh, Pape Cher. L'actualité que nous démarrons par le chef de l'État, Macky Sall, qui a demandé la réforme du système fiscal international euh, pour que l'impôt soit acquitté là où l'activité crée la richesse et du profit et contre le blanchiment d'argent et autres flux financiers illicites, car selon lui, ces derniers font perdre à l'Afrique plus de 100 milliards de dollars par an. Macky Sall a tenu ses propos lors de la 64e session de la Assemblée générale de l'ONU à New York. Du nouveau sur la cocaïne volée au port de Dakar, d'après l'octrice, Malik Chandoum aurait reçu des 80 kilos de cocaïne, euh, ce qu'il a nié lors de son interrogatoire euh, sous le régime de la garde à vue. Rappelons que Malik Chandoum a été retrouvé en possession d'une quantité de drogue cachée dans une de ses poches lors de son arrestation. Après la sage-femme Rokhaya Gueye à Sejou, un commerçant a été attaqué par un courant à Velingara, lui occasionnant une section de l'index gauche. Selon l'observateur, l'attaque a eu lieu hier vers 18h à Sheriff Dia, un quartier qui s'y trouve. En Espagne, 10 Sénégalais ont été arrêtés par la police dans la province de Majorque pour des faits de trafic de cocaïne et marijuana et d'attente à la propriété industrielle. Le quotidien LAS qui livre l'information renseigne que les policiers ont saisi 55 000 euros en espèces, 35 922 080 francs CFA. Musique pour euh, terminer cette brève, il s'agit euh, d'Oumar Pen. Euh, dans son titre intitulé Jola, histoire de se souvenir de cette catastrophe d'il y a 17 ans. jali doomam di Embarcadère ñu nax ko ne ko bato baa ngi nii di soga kos mu ne xaaral ma daw gaaw toppatoo si mbir yi gaaw ndekete joola ay jooy C'était à l'instant Omar Pène, Jola, tout de suite la version Olaf. yéen a ngi King FM 99.4 jërë ngeen jëf ci teewlu bi tënk xabaar yi dañ koy dooree ak njiital réew mi di président Macky Sall moom na dafa sàkk ngir ñu daal di xoolaat euh, système fiscal international ndax dafa bëgg impôt euh, ñi koy fay mu nekk ñi nga xamante ni ca activité ba ñuy ba ñuy def am nañ ca koom ca war ngir rek mun a fay impôt naka noonu itam ñu daal di xoolaat ñi nga xamante ni ñoo di blanchir euh, xaalis ngir ay daan ñu mun koo teg seen i kaw ndaxte blanchiment d'argent su ne mu ngi faire perdre ci réew Afrique yi lu toll ci. 100 milliards de dollars at bu jot Macky Sall mu euh, ci 74e euh, session euh, session assemblée générale bay ab bu ONU Don am foofee New York. lu bees am ci cocaïne ba ñu ci port bu Dakar ginnaw Orcotis Malik Chandoum ñom japp nañu ni mënees na am lu toll ci ñaari ci 80 kg yi nga xamanteni moy cocaïne bari ron ci port bu Dakar lolé nak mom tuuma yooyu daf ko teggi ba mu set wecc ginnaaw buñ ko doon interroger euh, ñel rek euh, ci garde à vue buñ ko euh, ci Malick ay quantité drogue arrêté. ginnaaw sage-femme ba nga xamante ni kankuran ba daf ko gaañoon ca Sédhiou ab commercant itam moom la kankuran daal di attaqué ca Vélingara tax nag ba mu daal di cay euh, ñàkk benn baaraamam ba nekk ca loxo gauche am bu ñu sukkandikoo ci observateur attaque bi nag mi ngi am niki démb ci guddi ay booru juróom benn waxtu ci bëccëg ca quartier bu tudd Chérif Dia nekk foofe ca Vélingara euh, xibaar yi fu dul suñu réew ca Espagne la ñu jëmale foofe nag fukki euh, sénégalais ñoom arrêté police teg la loxo ñeel wàllub trafic de drogue ci province bu tudd Mayork bu ñu sukkandikoo ci quotidien bi di las bi joxe bi lépp xibar policiers yi euh, japp nañ itam lu toll ci 55000 euros en espèces ak lu toll ci 30 euh, buñ ko xaymay mu nek 35 millions 922 euh, francs CFA ci suñu copar ñu jeexale tan ko xibar yi wàllub musique ngir tay ji jii ñu fukk ak juróom-ñaari at yi nga xamanteni ci la bateau Joola amoon ci même rew ñu digtal leen Omar Pène ci la Joola tere fiewo di domo de mambarkader ni nakko ne ko beto bangi ni di soga kosu leer ñu naxoon ni ko bato baa ngi nii di soog a costé mu ni xaaral ma daw gaaw toppatoo seen mbiri ko ngook mu doonoon la Joola bu Omar Pène ñu dégtal leen ko ba sub tey ji li nga xam dañuy fàttaliku boobule catastrophe amoon file ci euh, Sénégal fi nañu yem ak yéen ci tënk ko xabaar yi Penda Badji moo nekkoon ci kàddu gi euh, fego woon ci ak Alaaji Baye Cheikh ci technique bi Yacine Pouy moo nekkoon ci digital bi ñu bàyyi leen ngeen wéyal ak in Rejoignez-nous sur notre Facebook, Twitter, Instagram, King FM, première radio digitale du Sénégal.